مالك الحق المبين Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko gindee. Jazboul Mouride au service de maam Cheikh Ibrahima Fall. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di dikk ci turu comité de pilotage bi nga xamante ne sëriñ bi ñu liggéeyloo ci bisu bi yi nga xamante ne mooy bis bu mag dëgmal ci sunu kanam incha allah alxamis jii di ñëw wara a dëppoog ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski bi war a dëppoo itam ak fukki fan ñett ci weeru juillet deux mille vingt trois euh, suñu kàddu nag yi ñuy jottali ñu ngi ci tàmbalee yeesal sunu ñaan ak sunu ziyaar ak sunu njëbbal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñu borom bàyyi ko fi li mu nisar te yéene ko dongo yi te ku ne xam na ne lu tumuranke la loo xamante ne moom faggul nañu ko ngir suñu tey jak ak suñu ëllëg jak suñu borom defal ko ci lu kawe njortam di ziar njabootu sëñ Tuubaa gépp gi nga xam ne dañoo takkatoo ànd ak moom àndin woo xamante ne ah, lu mu song mu daanu loolu bàyyiwuma kenn di nuyu tamit sëñ Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kaddu sëriñ bi te it liggéey bi mu ànd ci ñun jiite ñu ci taxaw ci taxawaay bu rafet ginnaaw loolu nag euh, waar wi nga xam ne mooy euh, xaside yi may yeesalaat di feddali euh, sama kilifa bopp ci toolu xaside yi di ko ziar muy sëñ Hamsatu Mbàkke moom sëñ Suwaybu ginnaaw loolu kàddu yi nga xam ne maa ngi koy jottali ci turu comité bi nga xamante ne sëriñ bi ñu ciy liggéeyloo dafa jëm rek ci wàllu bernde yi euh, bernde yi ci bis bu mel nii muy bisu xaside yi daf ci am loo xam ne day baax ñëpp ñu xam ko ngir liggéey bu mel nii saa bu dikkatee it ñu xam ne lii mooy nosu gi ñi lay tëddee ndax xaside yi moo indi bernde yi fonkeelu xaside yi moo indi bernde yi te fonkeel googu dafa war a àgg ci pësteef ci ñun foo xamante ne buñ ci jëfoon loo xamante ne day ëpp mbooloo mi ñëw bu ëpp leen ëpp goo xamante ne dañ koy jàll wala euh, di di di di di wetti loolu sax bu doon am war ñoo xam ne jotuñu ak xaside yi su nit itam dikkoon njàngum xasida mi indi ko mu xëy suba ba jant soo mu mel ni ber bernde yi ak teraanga yi agsiwul ci moom it loolu dafa war a woyof toy ci moom ndax lan suñu xel dafa war a dem ci ki bind xaside yi te mu wóor ñu ne duñ jot àqam te fa mu ko doon bindee fa mu bindee xariban la dal ahdaa yi la wéet ci diggu noon yi te musta salit kon fonkeel googu buñ ci waxtaanee day baax ñu suwaat ci nan lañu ñu war a nosee bernde yi gis naa ñu bëri euh, di sos ay waañ te at yi ñu génn ni ñu liggéeyandoog ñoom ñun xam nañ ne waañ woo xam ne jël nañu nag jox la walla ñu indi dara jox la ko dolli nga ca loo xam ne mën na ko ñaar ba ñett kon fonkeel gi am na li ñu des nag ginnaaw mënee su cee def lu ëpp te mënee su cee def lu ñu xeeb kon li ci am solo kenn ku ci ne na sellal la muy def def ko ngir jëmmi Serigne Touba loolu moo ci am solo waaye jëmmi dayoo bi ak nu muy toll foo ko yamale rek la ca des mottalee ko sa yéene te xam ne sëñ Tuubaa kenn mënut a jot àqam loolu itam may wax ne Hizbut Tarqiyyah taxawaayam ci bis bi mooy xam nañ ne sëriñ bi dinañu toggaloo am na ñeneen ñoo xam ne sëriñ bi yàgg na leen toggaloo ci ay bis yu mel nii lu mel ni wilaya sëñ daan na leen toggaloo am na sëñ daam surang sëñ bi daan na leen am na njaboo tamit ñoo xam ne daan na leen toggaloo ak ñeneen ak ñeneen kon ñun euh, sëriñ bi naka jekk dinañu toggaloo ci bis bi loo xam ne loo mu bëgg dinañ ko ci def waaye li nga xam ne it mooy organiser gim ñu organiser loo nos la waaye firiwul ne Hizbut Tarqiyyah dafa yittewoo nit ku yor nag ne naa ko yóbbu Hizbut Tarqiyyah nit ku yor loo bëgg barke barkeelu ci bis bi ne naa ko yóbbu Hizbut Tarqiyyah loolu li tax ma koy leeral mooy soo ko toggee man ñun de moo nu gënal boo yoree nag war ko indi fii nga fàggul lu koy togg togguloo ko sa njaboot togguloo ko ñii la jege mooy li ñu gënal su la loolu téye it mënu ko nga xool fi la gën a jege te mu wóor ne fii ñu ngi ko fay dundal ci njàngum xasida mi loolu boo ko fa yóbboo ñu mën ko fa euh, yaatal mu jëm ci mbooloo mi loolu moog nga indi ko fii ci Hizbut Tarqiyyah ñun ñi ko sëñ bi di taxawloo am képp ndax tey jii mboolem kër njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñoo wër jumaa ji fu ci ne wàñña nga fa te njaboot ga fa ne takkatoo nañu noo xam ne yor pësteef boo xamante ne seen alal dañ koy def ci bis bi kon ku ñëw buntu kër daal di fay ne ne sama nag wii dama ko fi dama ko fi indi ngir mu jàpp ci togg yi loolu na la wóor ne ñooy waxal du fa jafe ndax kër ga di nga fa fekk ay nit boo ko defee kër sëñ Fallou kazalika na ko noonu boo ko defee mboolem kër yi wër jumaa ji kër sëñ Abdou Khadre kër sëñ Saliou fu ci ne di nga am ñoo waxal te dina tàbbi ci bis bi loolu it liñ ci jublu ci di ko leeral ni mooy Hizbut Tarqiyyah dañ ko taxawuloo ab liggéey boo xam ne moom laxasaay la ci yor waaye jiitewul jiite goo xam ne dafa yittewu mu mel ni ak pal wala mel ni di dajale di seddale booy dajale di séddale da ngay dajale loo attan bisub Serigne Touba bu mel ni bisub xasida doonul loo xam ne xaj na ci barab murit yëpp kenn ku ci ne da nga cay taxaw la ci sa wàll loolu mooy liggéey boo xam ne buñ ko xoolee lépp daal di rafet ah, ci biir loolu nag moo tax may xam xamle ne ah, loolu yàgg naa am waaye dañ ko bëgg a feddaliwaat rek ngir ñu gën koo nos mu gën a tege ci yoon ndax boo demee ci euh, daaru minam sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Hakim ni mu taxawee ñun xam nañ ko ndax nee na euh, fii moom incha allah ginnaaw ñun la ñu féetale waa ahlu min ahlu minan la ñu féetale penc mii ñu fi jàng ñoom ñooy war a dalal waa Njaareem ñooy dalal war a dalal waa Kaolack ñooy war a dalal waa Bambey ak waa Fatick waaye nee na lu ñu fay togg mu jëm ci mbooloo bi incha allah ñoom dinañ ko taxaw taxawaay boobu rek lañ bëgg ñu xam ne wàccul ku yàlla bind ndax sëñ Tuubaa ñëpp ko war a liggéeyal kenn ku ci ne nag kem sa kattan la nga cay def la ca des ndax yàlla suñu borom boo yéenee mu tàmbalee fay <clears throat> boo jëfee nag mu ful ko kon kooku neex naa jëflanteel loolu kon laa ci doon dolli ku mel ni xam sa it dama bëgg dellu siwaat ci wax ne dafay wane aw yoon ndax bëgg-bëggu sëriñ bi rek lay xencu te ci la taxaw moom day sakk ay waañ yu bëri bari bëri yoo xam ne day togg loolu mooy noppal ñépp mooy noppal ñëpp bu boobaa ñun suñu liggéey euh, ànd ak njabootam ànd ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk liggéey bi muy waa Muxaddamatul Xidma waa Rawdu Rayahin waa waa waa waa waa ci kanam waa wilaaya ñëpp rek dañuy bokk xam ne fu ñu nekk rek séddale mooy liggéey bi waaw séddale mooy doon liggéey bi te defee ko defin wu sell lii daal laa ne woon naa ko euh, leeral jigéen ñi seenu soññi am na ndax soxna maam xari doomi sëñ Murtala moom woote na nee na euh, togg yi muy togg sëñ Murtala kër ga buntu kër ga ak li ko wër dina def ba fu mu mën a yem te mu lépp lu ci war moo koy fàggu loolu taxawaay boobu moom la soxna maam Issa lu café di def taxawaay boobu soxna soxna astu moom moom moom si Abdoulaye borom dër bi moom lay def ak ñeneen ak ñeneen limaale wu ma nag ñi ki nga xam ne suñu wéyjur la di koo xam ne togg moom ku ne da ko cee xam muy soxna Bali loolu dafa doon loo xam ne naka jekk yittey sëriñ bi moom fu mu taxawee taxaw na doon bàyyi faalam di ci liggéey liggéey boo xam ne ku ne war na cee mën a kon lii daal mooy loo xam ne dama bëggoon ñu xam ko ci mu yombalaat ñu liggéey bi bis bi nag amul fu mu yem ndax daaw kuréelu xaside yi ñu sëriñ bi di liggéeyloo ñetti téeméeri kuréel ak fanweer ak ñeent daje nañ fi di jàng kenn ku ci ne xasida yi ñu la tànnal nga koy jàng daanaka wuute ak sa morom loolu it dañ koo nos ba nga xam ne mel na ni xasida yi buñ doon lim tey jii yi nga xam ne moom lañ fi jàng lépp yëkkati ko ca kaw yu bajjilu kulli kullakal yawma maxadin wa insha rabbi laa daa razawani feeñ na ci loolu kon mooy liggéey bi di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di feddaliwaat sunu laxasaay di wax ne bu kenn jàpp ne dañ laa wax ne jël sa alal ñëw indi ko ci bis bi nanguluñu la ko déedéet waaye dañoo bëgg fi la gën a jege nga bañ koo jéggi bu dee ñu fay dundal bis bi waaye fii ci daara Hizbut Tarqiyyah lu fi ñëw itam dinañ ko booleeg li ñuy def incha allah ndax ñun bu doon lu bi ma sa amle rek ay soldat la ñoo xamante ne ñoo murit yi dañu fas yéene rek di sóobu ci liggéey boobu lu sëñ bi wax ñu def ci la ñu mën ak lu ñu mënul lu fi waay indi dinañ ko booleeg la ñu yor yóbbu ko ci mbooloo waaye nag ñu xam ne rek li ñu gënal mooy ñu xam ne am na kilifa yoo xam ne penc yi ñu yor sax waxuma la jumaa ji nee nañ dinañ ko fa dundal te lu ca war dinañ ko def waaw sëñ Omar Bousso ci gédé gii wax nañu ko waaw te ñaxam la ciy def dajale njabootam teg leen ci yoon woowu kon loolu penc yëpp mën nañ koo ndax li wooteeb sëñ Muntaxa bi amul ku mu wàcc ñëpp mën nañ koo def te bu ñu maasee def ko nag dinañ xam ne sëñ Tuubaa moom faggul nañu loo xamante ne ku yàlla bind mënta tey ñu jot ci teraangay tey xéwalu tey xéwalu ëllëg ak àdduna sépp maase ci xam ne jàmm moom bu ñu koy séentu te bëgg ko it sëñ Tuubaa ko yor wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. malikul haqqul mubin Cheikh Ibra yow ku yaa ko gindee حزب المريد والسيرفيس دمام الشيخ إبراهيم فعلا